asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ak mbokku internautes yi ñuy seetaan sur la TMS TV yéen a ngi seetaan seen émission lii di lire commentaire mu nekk en même temps ActuNet saa su ne ñu ngi leen koy euh, jukkeel ci anam bu mu gën a rafetee rek ci ña maanaam ñi nga xamante ni mooy mbokku téléspectateurs yi ak internautes yi ñoom mi nga xamante ni dañuy suivre. Alaaji Thierno Moule Sow di ci commenté ci vidéo yooyu ñu posté sur la TMS TV ci naka noonu mbokk internet yi ñu daal di ziar jox wàccuwaay ki nga xamante ni moo di the king of all the king di xalif général kulli médecin traditionnel du monde di Alaaji Thierno Moule Sow waaye itam ñu ngi tënk nuyoo bi ci groupe la TMS TV ak suñu caméraman yu xarale yi yu ñaawul dara macha allah big up à donc mu nekk li nga xamante ni mbégte la contentement donc ñu daal di dem ci càppaandaw ba daal di lire ak commentaire yi nga xamante ni moom la mbokki internet yi di def saa su ne ci vidéo yooyu ñu posté sur la TMS TV ay ca ma tàmbale ak yéen mbokki internet yi donc ñu tàmbale nag ci benn vidéo bi nga xamante ni mu ngi porté ci devant sa mère cette femme possédée par des djinns par des sorciers et faire fracassante révélation ci bile vidéo bi nga xamante ni daal dinay am solo ñu amoon ay révélation yu doy waar révélation yi nga xamante ni daal dina am benn xale bu jigéen bi nga xamante ni moo nekkoon di liggéey fii ci euh, la TMS TV donc nag mu amoon benn sorcière bu ko duggoon mooy maamam bu jigéen ak ay jinne yi nga xamante ni daal dinañ koy dugg waaye mu da amoon benn révélation bu choquante bi nga xamante ni daal dina koy révélé ci kanam juróom bu jigéen donc ci loolu la ñuy àddu nag euh, dem ci benn internaute daal di dem ku ci mel ni aliment moom itam daal di ne naan c'est très dur pour la maman donc mu nekk li nga xamante nii lu am solo la adduwaat demaat ci Abi Fall moom itam daal di ne naan elle est tellement belle macha allah donc mu nekk li nga xamante ni itam euh, seen gis-gis la donc adduwaat itam. demaat ci Fatou Sow moom itam daal di ne naan macha allah sama sëriñ bi amul fenn doo seen morom yàlla sàmm la yàggal la fi the king of all the king avec yow lépp dina leer merci Thierno Moule Sow itam àdduwaat. Euh, ku ci mel ni Fatou Ndong moom itam daal di nee naan ay waay lii daw na yaram attends ta fille maman incroyable mais c'est vrai n'abandonne pas ta fille la aide-la donc mu nekk li nga xamante ni ndeysaan ay émotion la jëmale ko ci xale bu jigéen bi ak waajuram bu jigéen donc nag mu amoon ah yenn conseil yi nga xamante ni daal dinañ koy jox euh, ki nga xamante ni moo di waajuram bu jigéen euh, donc mu nekk li nga xamante ni lu am solo la adduwaat itam demaat ci ku ci mel ni Mouhamed Sarr donc Mouhamed Sarr moom itam daal di ne naan une chose est sûre une situation particulière, mais loin d'une non-assistance de personnes en danger. Il me semble que l'attitude et la posture du Khalif général sont dictées par une expérience avérée acquise sur le terrain. Son but est de forcer la famille à regarder et affronter la vérité en face pour une prise de responsabilité conséquente, d'autant plus que la maman de la malade montre des signes de dépassement sur ce qui se passe sous ses yeux. En résumé, le marabout ne veut laisser aucune place à d'éventuelles euh, euh, réputations ou interprétations au regard de la source de la sociologie euh, sénégalaise donc mu nekk li nga xamante ni ay remarque la ay constat la euh, jëmale euh, bu yu ci internet yi yu jógee ci téléspectateurs yi jëmale ko ci ki nga xamante ni moo di le yi général Alaaji Thierno Moule Sow waaye jëmale ko ci li nga xamante ni moo di les faits euh, bi nga xamante ni daal di ne am ci boobu les bés donc àdduwaat itam demaat ci euh, ku ci mel ni Nafi Seck moom itam daal di naan la vidéo doit continuer on doit savoir la suivi donc àdduwaat itam demaat ci euh, Evelyne LM donc moom itam daal di naan fii sutura amu fii dëmm moom kenn du ko bàyyi noonu Thierno Moule Sow il ne négocie pas avec le dëmm c'est bien de partager cette vidéo euh, de ndeysaan elle était surprise et dépassée de toutes ces révélations c'est dur cette décision mais kilifa de kili day mat kilifa rek nga euh, donc mu nekk li nga xamante ni nee na itam décision mais kilifa la donc mu nekk li nga xamante ni ah lu am solo la du courage maman donc adduwaat itam demaat ci Souleymane Sissoko moom itam daal di ne naam cette mère a complètement rejeté sa propre fille au profit de la grand-mère de la fille qui se trouve euh, donc sa maman donc moo mu nekk li nga xamante ni itam lu am solo la à droite itam Fatima Ayala Seck moom itam daal di ne na soigne cette fille Thierno Moule Sow tu es une missionnaire donc mu nekk li nga xamante ni itam lu am solo la adduwaat itam demaati Seydou Badji moom itam daal di ne naan ah, ben la maman a raison quel que soit Alpha elle a droit de défendre sa maman sorcière c'est honteux vraiment soit forte Euh, donc mu nekk li nga xamante ni lu am solo la à droite itam demati ah, Khadija Kamara moom itam daal di ne na je pense que sa mère est en état de choc il faudra la soigner la fi longue vie à toi Thierno Moule so adduwaat itam demaat ci euh, beneen vidéo bi nga xamante ni c'est en exclusivité en direct sur la TMS TV mu nekkoon nag bés bi nga xamante ni bésu consultation la benn séance de consultation mu amoon nag ay nit yi nga xamante ni dañuy posséder ay jinne ak i dëmm donc mu amoon ay révélation yu am solo adduwaat dem ci euh, benn internaute ku ci mel ni ramatulaay Touré moom itam daal di ne naan subhanallah Thierno Moule Sow a aidé un pour son placement par son euh, par son baatin yow jàmm rek ngay am ak euh, yokkute macha allah gën a la gën a euh, ci Thierno Moule Sow donc mu nekk li nga xamante ni lu am solo la. adduwaat itam demaat ci Kumba Mbay moom itam daal di nee na allahuma amin sa goro dafa yàgg baax macha allah donc mu nekk li nga xamante ni itam ay témoin la hmm, ay gis-gis la par rapport ci li nga xamante ni moo di euh, lépp li nga xamante ni jëm leen ci euh, Alaaji Thierno Moule Sow adduwaat itam demaati Ibrahima Ba Baba moom itam daal di ne naan ku bëgg dem dell def lu baax yàlla euh, yondi na les tout puissants mooy la xalif général le tout puissant mooy la xalif général Alaaji Thierno Moule Sow donc adduwaat itam demaat ci ku ci mel ni Ousli moom itam daal di nee naan ndeysaan sama yaram dafa daal di daw lool euh, ku bëgg TMS TV xalif général di jinne bësal j'aime donc mu nekk li nga xamante ni ah ay émotion la par rapport ci li nga xamante ni moo di euh, liggéeyu kilifa gi donc adduwaat itam demaat yi ku ci mel ni Fatou Niass moom itam daal di ne naan macha allah sama sëriñ maa la gëm billaay yaa baax ci euh, domeram yi toog ci euh, liggéey nit ñi rek lañ fi nekkee daal donc mu nekk li nga xamante ni lu am solo la itam àdduwaat. dem ci Mamadou Bakayoko moom itam daal di ne naan pourquoi il y a des personnes mauvaises s'en prendre à son prochain le jour du jugement dernier sera chaud pour les défaillants répétez-vous et euh, aimez-vous donc les uns et les autres rien ne vaut la vie je suis choquée par ce témoignage macha allah Thierno Moule Sow allahu akbar donc mu nekk li nga xamante ni lu am solo la donc mbokkentoo na ci fii la ñu daal di ndar képp ak seen émission lii di Actunet ñoo ngi jaajëfal nag euh, suñu caméraman yu xarale yu ci mel ni mbay ñoom Pape ñoom Youssouf euh, ñoom ñëpp ñi nga xamante ni ñoo nekkee ci wàllum xarale bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal suñu doyen yëpp donc mu nekk li nga xamante ni mbégte la contentement jox leen dégg dajee ci yeneen jotaay ci seen émission lire